dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gii di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Dame bu kesem su authentique lu mu yëkkul Macky Sall ak ministre bi ñu dénk njàng mu digg doomu mi di ma Mamadou Talla daf koo fàtte moom Dame ca nee na Sénégal bu ñu jekkee-jekk dégg ñu ne ab jàngalekat wala ab élève am na coronavirus bu mu bett kenn ci réew mi ndax Macky Sall li mu waroon a def defu ko li mu waroon a def mooy tester jàngalekat yi ak élèves yi bala ñuy commencé waat li nga xam ne mooy njàng mekk njàngale na benn cas kese bu ñu ko déggee ci école yi maanaam tëj nañu école yi te Macky Sall ak ministre Mamadou Talla bu ñu waxante dëgg ñoom ñoo wégul jàngalekat yi ñoo leen respecté wul waaye nag ñoom bu ñu respecté wul ñun ñu respecté suñu bopp te nag du ñu nangu ñu ñuy taylee loolee kàddu dàmbuj la man ka xam le ci yéen kay kaay gii di réew mi ko dëjee nee na Macky Sall jamono ja nga xam ne ma ngi doon tëj école yi boobee maanaam ñaar fukki nit rek ñoo amee coronavirus ci Sénégal ñu dem ba askan wi lu toll si ñetti junni ci ay nit am coronavirus Macky Sall bëgg ubbi école yi loolee la xel nanguwu la te nag jamono ji Macky Sall nee dafay ubbi école yi jamono joojee maanaam conseil des moom ma koy defee vidéo conférence grand place ñu fekk fa Abdou Fati bu sel su authentique la mu xam ne nee na état bu bi nga xam ne moom lay joué maanaam loolee la war a bàyyi ñoom jàngalekat yi du ñu ay joué katu cinéma te Macky Sall buy joué cinéma maanaam na leen ci génne bañ seet si wecc yéen a kaay gii de la témoin mu ñu xam ne maanaam moom lañ dénk wàllum finance ci réew mi moom dañu ko testé ndax dañoo gise woon ak Aliou Sall maire bu Géejawaay bi amee coronavirus yéenekaay gi di enquête mu ñu xamal nañu Abdoulaye Daouda Diallo jamono ji dañu ko daal di quarantaine journal bi du l'Observateur mu ñu xamal nañu musiba am na ca Institut Pasteur ndax foofee personnel ba am na ñu fa amee jàngoroy coronavirus moo tax tiitaange ak njàqare maanaam dafa daal di dugg yéenekaay gi di Rewmi Quotidien ak Vox Populi mu ñu xamal nañu fulla mooy jaay Dakar chloroquine bi nga xam ne waa OMS daan nañuy wax ne nañu ko teg ci suuf Sénégal bokkul ca ci ndax nag ñoom nee nañu chloroquine bi am na njariñ te ma ngi faj ay malade professeur Moussa Seydi nee na chloroquine bi amul kenn koo xamante ni rey na ko ci réew mi waa Maroc ak waa Algérie ñoom tim nee nañu dañuy wéy di jëfandikoo chloroquine bi yéen a kaay gii di Dakar Times mu ñu xamal naan ñu OMS jamono ji lu ñu teg di jëraawul daal di koy teggi yéen a gii di La Tribune ak L'As ak réew mi quotidien mu xëy yóbbu ñu jàmm gën a si kàmbaaw foofee nag dafa am ku ñu bëggoon a denc sa sëg ya maanaam sa armeel ya wa génn na du fa amee ndax ñu fa bëggoon a denc dafa amee coronavirus ba tax yàq nañ fa otoy sapeur pompier yàq fa otoy croix rouge yéen kaay gii di source a mu ñu xamal ñu Touba jamono ji askan wa tiit nañ ba maara day taali ndax dafa am koo xamante ni dafa bokk ci kuréel gi doon wër ci kër yi doon xool ana ñan ñoo yayoo dund gi kenn sa personnel boobee maanaam dafa amee coronavirus loole moo tiital askan wi yéen kaay gii di Sud Quotidien mu ñu xamal ñu lu jëm ci ndimbal li nga xam ne état bu Sénégal wax na ne daf koy dimbale askan wi ba léegi ni am na ñoo xam ne ñoo ngi toog di xaar lenn maanaam mbir mi yeex na ba jégg dayo moo taxit njiitu réew mi di président Macky Sall wax na ak Mansour Faye nee na ko baralal jéego yi yéen a kaay gi di réew mi quotidien Assane Samb xëy jël xalima ma nee na contrat bi nga xam ne ñoo ngi koy ŋawte ŋawte diggante Sénélec ak ak li am na ay leesu xul am na règlement de compte boo xam ne am na ca li am ci yéen a kaay gi di libération mooy Babacar Dia kookee contrôleur bu douane la dafa def ay luq njur ki njaaxum yu doy wara ndax nag dafa daal di toppandoo signature directeur général bu impôt et domaine ba jot ci ay kër jël ko jaay ko ca almadi ca yoof jamono ji teg nañu ko loxo yéene kaa gi di Stades ñu xëy fekk fa Krépin Diatta mi nga xam ne dafa am xel ñaar maanaam jóge ci Belgique journal bi nee na waa Milan AC ak waa Watford maanaam jamono ji Krépin Diatta la teg bët waaye li am ba des Sidaat Sarr la mu xam le nee na moom su doon Krépin Diatta dafay des lu toll ci benn at ci Belgique